teel koo liggéey loolu muy xam ne Serigne Touba ñëpp dañ ko war a dañ ko war a jéem a xam wa ndax ndax man cee man koo man cee jëriñ waaye man cee jëriñ ñeneen <coughs> loolu moo ñu dugaloon ci di jéem a gëstu ah, jéem a cee cee fa mag ñekk yoon di jéem caa sof di bind waaye nee ba gisee nag ñu bari ñu ngi góorgóorlu di di di di bind ak gëstu ak di génne ay téere ñu gis ne itam ngir boole suñ doole doole gën a mën a ndax gën a mën a liggéey ah, war nañoo boole si suñ bopp ñu woo leen suñu bopp nag ci lu mel ne euh, daa daa daayira waaye waaw xam naa bëgg bëgg mu bëggoon mu gën a kii rek moo tax ñu tuddee ko aw def ko tuddee ko def ko association. waaw waaw moom mooy muy Jamiyatul Kuttab lil Mouridiyya association des écrivains la Mouridiyya waaw waaw ci loolu lañ doon liggéey nag waaye bañ ko bañ ko bañ ko bañ ko tàmbalee ba ba gis ne dañ ko war a taxawal rek dañoo daal di ñëw ci sëriñ bi sëriñ Muntaxa <coughs> waxtaan ceeg moom. buñ ko buñ ko buñ ko buñ ko leeral lépp nag ak euh, jot andi liñ jot liñ jotoon am ciy téere yi euh, nga xam ne jot nañ ko bind ñu ñu ñëw jébbal ko laa laaj ko ci ndigal ki lañ joxe ndigal nag euh, ñu ñu ñu tàmbaleen kon di ci liggéey nag waaw euh, waaw waaw yàlla dogal na sax moom lu mel ne li ñu li ñu bëgg a taxawal ren ji muy muy muy muy muy ab fo ñu ab foire fu ñuy gaarale téere yi mas nañ mas defoon defoon nañ ko fii Dakar waaye def nañ ko ñaari yoon ci jumaay Tuubaa ji waaw joo sañ ne sëñ sëñ sëñ sëñ Basiir sama moom moom sëñ Abdou Xaadir moom moo moo ñu booleeg waa Muxaddamatul ma ñu di ñu di gaaral ñu jot ñu fa gaaral téere yi waaw waaw waaw ba nga xam ne ñi ñëwaat gerte ñu bëri dinañ dañ mën a liñ liñ ci bëgg ci bëgg ci téere yoo yu mën a yóbbu la dañ ko mën a am waaw ren jii nag ñu bëgg koo taxawalaat mu muy maadul kit maadul kitaab foire de livre waaw boo xam ne li liñ jot a bind ak ak li nga xam ne mag mag bindoon nañ ko luñ mën a luñ ci am dañ ko fa yóbbu gaaral ko ndax ndax jàppal ndax am na ñoo xam ne dañuy dañ koy dégg waaye duñ ko duñ ko gis mbaa am na yoo xam ne sax mën naa siiw fii lool waaye waaye waaye ñu nekk Dakar wala ñu nekk feneen duñ xam ne sax am na waaw lu mel moo tax ñu taxawal ko waaw waaw taxawal ko xam naa kon kon xam naa jaar jaar ñu jot a jaar xam naa ah, damay damay jox rek comme mel <laughs> la inspecteur <laughs> a mën a a leeral. <coughs> bisimilah barke borom Touba ah, ko sëñ Cheikh waxee rek xalaat bi daal bi juddoo li koy indi mooy dañoo tàmbalee seetlu nii mbind mbind ci sëñ bi mi ngi bëgg a bari te làkk yi nga xam ne ci lañ ko bindee it mi ngi mi ngi mi ngi bëgg a bëgg a bari ndax bu jëkk ba daanaka mag ñi ñoo fi nekkoon mag ñi boo ci waxoon tey ku mel ni sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana ku mel ni señ sëñ Bassirou Mbacké eh, sëñ Mouhamadou Bachir daanaka mooy bind yi nga xam ne mooy cëslaay yi gën a wér ci li jëm ci sëñ bi ñoo mooy mag ñi ñoo fi nekkoon. léeg-léeg ñu gis ni nag ndaw yi léegi ak ñuy jàng ci façon njàng xeeti jàng yu wuute. ak ay làkk yu wuute dañuy bind ñii ci wolof ñii ci français ñii ci anglais ñii ci lu ne. ñenn ñi di bind ngir nettali jaar-jaaru sëñ bi siira sëñ bi ñenn ñi am yëg-yëg rek ci sëñ bi di bind comme poète yi nga xam ne moom dañ koy way di ko tagg bind bi daal ba ñenn ñi di bind ci waa kër sëñ bi ñenn ñi di bind ci mag ñi sëñ bi defar ñenn ñi ci yoonu murit ki économie ci histoire mu ñu daal bari bi ñu ko seetloo ñu ni bu fekkente ni defuñ ci dara dana dema dema dem ba nga xam ne foo wàññi ak wàññee ko rek gis mbind ci sëñ bi te du du doo doo xam ndax wér na tey dajale gi da ciy baax ñu ne kon nañ nañ taxawal lu mel ni kuréel goo xam ne gii dañ ciy woote nga xam ne képp koo xam ne ki bind nga ci sëñ bi rek ñu fexe ba nga indi li nga bind léegi danañu may ñu dajale ko ñu may itam ñu saytuwaale ndax lii ñu bind nii lu ñu war a bind la nii lañ ko war a bind wala déet dimbalante ba nga xam ne ndax am na ci ñu bëree bëri dañu yéene am yëg-yëg yéene waaye xëy na gëstu ba ba mu laaj wala xam-xam ba laaj sax duñ ko dajalee. loolu daanaka mooy mooy mooy mooy sababu ñu ñu ñu taxawal mbir mi. bi ñu ko taxawalee nag comme ni ko sëñ bi waxee. dem ci sëñ bi sëñ bi boole ñoo sëñ Cheikh mii. ko fekk mu moom it muy bind kat boo xam ne bi jot naa bind lu bari ci sëñ bi. Euh, ñu ñu ànd ànd ak moom liggéey bi nag. daal di tàmbali mu mel ni daal gaa ñi daal bi ku ko dégg rek te nekkoon bindoon dara. indi nga sa téere daal di bokk. ñu def ko association la association dafay neex a siiwal neex a lawal ci ci àddina si. Mhm. fi ñu toll nii daal boo boo ko jaa ko doon xayma lu ma téeméeri nit bindu nañ ci loo xam ne lii kenn ku nekk bind nga ci sëñ bi ñenn ñi sax binduñu benn wala mhm. ñaar wala ñett ay mhm. téere lañ ci bind. boo ko doon xool tam boo doon xayma tam làkk yu wuute am na ci fi nii am na wolof am na français am na arabe am na anglais am na sa ñoo xam dañuy bind ci aw làkk ku mel ni Seex mi day bind ci arabe. waaye nañ ko sotti lu mu gàtt gàtt ci juróom juróom-benn juróom-ñaar ba juróom-ñetti lakk yu wuute yoo xam ne ci benn téere bi lañ lay lay doon léegi nag ba loolu amee nag ñu njëkk a def benn foire ci ca Dakar ci Masaalikul Jinaan ci jumaa ji ngir gaaral li ñu am ak membre yi ak wootewaat saf sof ci ndax lu buñ koy def lay lay màggal tu tuuti ci des. sof ci benn exposition boo xam ne moom it ci. ci peggu jumaa ji lay doon fii ci ci ci biir màggal gi. comme ni nga ko waxee ci ak waa ma waa xet ba. kooku itam sëñ euh, euh, moom sëñ Abdou Xaadir bi mu ko yëgee la ci joxe ndigal euh, jàpp ci bu baax baax ba xam loolu itam day jàppandi. def nañ ko daaw def nañ ko daaw jéeg. ren ñi ñu ngi koy waajal. léegi nag xamaa ci tënkit mën nañoo jàpp ni bi association bi commencé nit ñu wuy si nag yëf yi commencé yaatu ci lañ gis ni war naa am ay sémb yu ñuy sémb. bokk na ci sémb yi def lu ma ni catalogue maanaam dajale ci ab téere lépp luñ bind ci sëñ bi nga xam ne boobu fu ne nii tey doo mën a am téere yëpp waaye téere boobu boo ko yoree da nga daal di gis liñ bind ci sëñ bi yëpp te jot ci ñun te ñu mën cee kii da nga koy daal di gis fii ci waa ka ko bind na téere ba ci aw wan làkk ko bind fu mu dëkk moom nangam lu ñuy def ba jot ci ak yu demee noonu loolu mooy am nañ ci seen mbam te sori nañ sori nañ ci loolu lëkkaloo tam ak université yi nga xam ñoo ne ci réew mi ndax dañoo gis ni sëñ sëñ sëñ bu mag bi daanaka fi mu ne nii soxla àdduna sépp la boo ko boo ko seetloo ku nekk yaa ngi ci yëngu jëm mbaa ngay gëstu jëm ci mbaa ngay wax jëm ci loolu lu ñu war a nos la nag ñu fexe ba lëkkaloog université yi bari ci réew mi nga xam ne li ñu leen di li ñuy jëflante bëgg a jëflante ñoom partenariat bi ñu soxlaa jëflante ñoom mooy ñu ñu fay dem di def ay conférence di dem di dem di wane ay téere seen téere seen kàggu yi yi yi yi liggéeyee ñu fay fexe ba fay dugal téere téere téere yu jëm ci sëñ bi waxuma bi waaye téere yoo xam ne dañ koy bind ci ci ci sëñ ci waaw loolu tam bokk na ci ci ci ci ci ci bébét yi waaw mu ngoog waaw waaw mu ngoog waaw waaw waaw kàggu gu mel noonu bañ ko déggee rek ñun dañ ko dégg rek euh, ci waa Hizbut Tarqiyyah Daaru Xudoos dañ ko déggee ñu ñu gis ni comme kii kàggu kàggu ak gu mel nii nag moo ñu tax ñu dajalee ay téere dañ koy tànn ñi nga xam ne ku ka ni kàggu dafay ñëw lu ñu li ñu war a soxlawoo ci wàllu làkk wi ak ci wàllu xeeti mbind mi ñu dajale fa ab kii lim bu takku indi ko fa euh, keroog defe naa sëñ Fallou lañ fa fekk sëñ waa euh, daal daal daal fa joxe addiya waa waa bu Muxaddamatul Xidma tam jël ab lim bu takku yóbbu fa waaye isub saraxee tam isub saraxee daal ko doos ñu jël ab lim bu bari yóbbu fa te noonu lañ koy liñ ko fas yéene jàppoo ku ñu gis ku mel fu mel noonu rek nga xam ne kàggoo nga fa goo xam ne jii dañoo war a dañuy wane ay téere te war a jàngale sëñ bi ñu wut ab lim ci ay ay téere yóbbu fa di continuer nag di woote di yaatal suñ kii noo xam ne ndaw yi nga xam ne ak gëstukat yi nga xam ne si yéene ji ëpp sax xam bi bu ñu ko xamee ñëw ci ñun nekk membre xam ko ñun mën bu ñu amul xam-xam bay mën na laa teg ci yoon booy laaj gëstukat boo xam ne bii wala ay wutal na ay téere yoo xam ne yi boo gëstu la nga mën a li ngay bind dana gën a wér léeg tam nga gis koo xam ne day bind ci aw làkk ba koy sepp ci yeneen làkk ak ba pare néew ci doole wala xamul fu muy jaar ñu ñu jàppale ci am na ñoo xam ne tam bind mool gi nekk jafe ci ñoom ñu seet li ñuy def ba jàppale la ba nga ba nga mool waaw ak yi demee noonu daal yooyu daal daanaka ci gàttal waaw mu ngoog mooy mooy li mooy mooy mooy liggéey waaw salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ma nuyu sëñ Abdou Samad bu baax <coughs> sant ko ci dalal gi mu dalal mbooloo mi yaakaar naa suñu kàddu kàddu yi sëñ Cheikh ak kàddu yi sëñ Mouhamed Lo mi yóbbaale woon na ko waaye ndigal lañu sëñ Abdou Samad jox moo tax nu ne nañ ci yëkkati kàddu xam naa dañ koy jëmal rek ci solos mbooloo mi di association des écrivains de la Mouridia Jamiyyat Kuttabul Mouridia muy mbooloo moo xam ne fi ñu féete eh, mel na ne jamono laaj na ko fiñ ñu féete ci wooteeb sëriñ bi. lu jamono laaj la ndax mel ne li sëñ bi daan digle ci kuy sàkku xam-xam nga yittewoo ko lépp jàpp naa ne daje na ci mooy dañu réer ndax bala nga bind téere nag dañu réer waaye jariñ bindeef yi te dundal xam-xam jëfe sa xam-xam loolu yaakaar naa lépp daje na ci mbooloo mi muy buntu woote ci yoonu sëñ bi ak ak xalaatam di bunt boo xam ne jàpp nañ ne. ñu bari mën nañu bañ a sax njariñ li mu am waaye bu amutoon eh, eh, yàqkat mën nañoo jaare ci bunt boobu yàq lu rëy rëy ci résultat ak ci yoon wi kon bu ko mbooloo di taxawee organiser seen bopp nosi seen bopp jàpp naa ne loolu mbir mu am solo la daal nga xam ne kon mat nañoo jàppale eh, yoo xam ne sëñ Abdou ci wàllu woowu lay yëngu di jàppale initiative yu baax yi di ko tasaare li aju ci yoon wi aju ci lislaam ji moo tax xam naa ne dikk gi mën na amal njariñ bu baax a baax euh, association bi kon ci woote bu baax a baax rawatina xew-xew bi nu dëgmal muy def foire internationale wala foire du livre gaaral fa li ñuy bind ci sëriñ bi ci ay làkk yu wuute ndax moom wenn làkk mu taxeeb na ndax lu mu tuuti rek nit mën na caa jaar gindiku ci waateb sëriñ bi te loola nag sunu warugar la ñun ñëpp waruñu ko yemale <laughs> Bawol waruñu ko yemale Sénégal woote bi lislaam la te lislaam àddina bépp la daj kon wax dëgg yàlla am mbooloo mu dajaloo di yëngatu ci wàll woowu lu am solo la euh, lu mat a dëgëral la daal ndax ñi yëngatu ci ay caaxaan sax ngir dëggal seen bopp ci caaxaan yooyu ña ngay dajaloo ka organiser seen bopp kon na koo xam ne la ngay yëngatu jàpp nga ne njariñ mi ngi ci mën na caa juddoo lu wér jëm ci wooteeb sëñ bi jëm ci lislaam kooka mat naa dëgëral mën naa jàppale te loolu la ñuy séntu ci kilifa yu mel ni yéen te alhamdulilah ci lañ leen fekk loolu rek laa noonu nañ ko ci yokk ci kàddu yi wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa suñ tubaab yi wàcc nañ mag ñi wàcc nañ yéen ci kon nag ñaane leen dimbal yàlla ba ngeen yóbbu ko fekk mag ñi bëggoon ren looloo ci des xalaat yi ma ci njëkk am nag mooy bi ma demee Maroc ci bisu xasida bi doon naa ko wax dama bisu xasida daaw ba dama ànd ak eh, Ahmadou Mbacke moom Daaru Muxti ñu ci jumaa ja ma leen ma ne ko nañ gis imaam ji mu daal doon recevoir benn suite bi ne foofu fekk maa ngi ànd ak njaay xasida ma ne njaay jàngal ko xasida yaasal wu jóodi xasida tawxiid bu yéeme googu mu jàng ko njàngin mucc ayib ci kanam mu yéem mu yéem ko lool ba mu mu ne ko wax lii ñu ne ko Cheikh mu ne fu mu ne ñu ne ko Sénégal mu ne ci mam tarixa ñu ne ko murit mu ne tey la ko mos a ba ma génnee ne ma ne gaa ñi liggéey bi des na liggéey bi des na ndax Maroc gii kaasa ni mu bëri ñi seen liggéey ñu dem ba imaam ji man a wax ne xamagut sëñ Tuubaa xamagut murit kon seen liggéey bi des na na ngeen ko xalaat bisu xasida yi baax na daayira yi baax na waaye sëñ bi def na li mu war a def lépp wone ab liggéey mooy liggéey bi waaye nag produit bi fi sëñ bi bàyyi nga defee ne murid yi rek ko moom di ko consommer yow dong defe ne yaa ko moom loolu erreur la liggéey mooy yóbbu ko ci ñi ko xamut wan leen ko ñu xam ko kon li gën a farata mooy li sëñ bi bind ñu feex ba yóbbu ko ci maktaba yi présenté leen ko liñ bind ci sëñ bi ñu yóbbu ko ci maktaba yi présenté leen ko boo dee maktaba maktaba yu bari ci ci ci alam bi fépp rek téere yu ne nga fay gis waaye doo fa gis téere bi doo fa gis téere sëñ bi doo fa gis luñ bindi sëñ bi loolu nag dafa laaj ngeen boole ko ci liggéey bi wut wut mbooloo moo xam ne dañ leen dañ leen di tànn tànn ngir ñuy tasaare mbindi siñ bi ak liñ bind ci sëñ bi fu mu war a àgg fa te fuñ ca dem jaar ca ñañ war a jaar présenté leen ko ña ko war a xam-xam ko ñu teg ko fañ ko war a teg ba ku fa dem di xool gisaale ko waaye sëñ bi lim bind kenn bind ko nim ko bind yi kenn bind ko ni waaye wane ji des na wane gi loolu nag daa war a bokk seenub liggéey yéen ngeen fexe ba réewi naar yi réewi anglophone yi yëpp ngeen boole fexe ba am ñoo xam ne li ngeen leen di liggéeyloo <clears throat> téere yooyu ya nga xam ne digg doomu na bañ man koo jariñoo ci anglais ci français espagnol arab ñu fexe ba yooyu ñu fexe ba lu néew néew dëkk yu mag yëpp seeni maktaba ñu am ko li gën a gaaw ci wone sëñ bi rek mooy wane fi mu tegoon tànkam ak lim bind waaw ak lim bind ci moom moo tax liggéey bii li ci gën a rëy mooy fexe ba tasaare mbindum sëñ bi ba ca ba ca ba ma gis ne yéen waroon ngeen am seen maktaba bopp moo xam ndakaar lay doon moo xam tubaa waaye maktaba boo xam ne yéen a koy moom di ca dajale li gaa ñi bind lépp bu ko defee lii ngeen def nga ne màggal rek lay doon du ca yem da ngeen def ñetti weer yu ne ngeen defum ndaje ña lu leen seen temps may ñu dikk leeral seeni téere ñu communiquer ko moo tas yaatal ko ba ñëpp xam ko waaye buñ ko def at mu ne benn yoon rek day gàtt waaye barab boo xam ne dangeen fay def maktaba mën naa bañ a doon sax lu rëyee noonu waaye nag na doon symbole boo xam ne rek moo leen di moo leen di tënk ci ne lii seenub sees maktaba bi yéen ko moom yéenu neen du lu kenn di jënd moom du lu kenn di donn du dara ba abadan moomelu sëñ bi la te yéen seen loxo la ne te communication bi it yaatu na ngeen fexe ba lu gën a yaatu moo ci gën ñay def téere nañ leen di invité ñuy waxtaane seen téere bi lañ ca def ak nañ ko gisee loolu benn tomb la beneen bi ma ci gisaan nag nga xam ne moom da ngeen cee war a taxaw temm te buñ ci amee ndigul sëñ bi dana yomb mooy balaa kenn bindati ba di ko sañee mool wala ma di ko tasaare ngeen xool ko ba corriger ko ba d'accord ci def seen tampon mu doon a am ndigalul génn ndax bu dul loolu ñu ngi yokk ci histoire sëñ bi lu ci bokkut wala ñu di ci génne lu ci bokk hmm? te koy def sax lu baax a tax mu di ko def waaye day juum wala ñu juumloo ko loolu nag war nañoo am laj na boo xam ne seen liggéey weesu wut topp ko ba ñëpp ànd ci ne nii la bu ca tampon ba ne wut wartu waruñu ko mool waaye nag waruñu nag tasaare tasaaroo goo xam ne ku nekk rek sañu bindi siñ bi mool mu dem keneen gis ko fële tubaab ba taxaw fee xool ko daal xool lii ne fii laa ko gisee lii kii daa bindi ci lii te amul lu ko tënk bam sañ koo génne loolu kenn sañe lu ko ñeneen siñ ba yaatutu yërmande ji bar rek waaye loo ko bëgg bëgg loo ko bëgg bëgg liggéeyal war naa am ñu leen tënk ñoo xam ne loo bind ci moom ñoo ñaa koy xool ba accepté ba validé bu door a génnoon waaw waaw lool lool lool nag moom man danaa ci liggéeyee danaa ci liggéeyaat ñaan sëñ bi loolu mu jox leen ci ndigal bind bind ko sax bu ma ne jox leen ci ndigal ba nga xam ne loolu da ngeen koy wax officialisé ko ñëpp xam ko xam ne kuy bind tey siñ Tuubaa bu noppee ne leen ko woon ba ngeen topp ko ñu door koo móol waaw moo xam français la moo xam anglais la moo lu mën a doon yooyu jàpp naa ne baax na ci am seen seesu bopp ba noppi am ndigal lii li ci des nag mooy ñuy ñaan ñiy def ngir yàlla te bokk ci yoon wi te man dara nañ xam ne liggéey ngi boo xam ne ku ne war na cee dugal loxoom ndax koo yaa ko bopp ku bëgg liggéeyal Sëñ Tuubaa fabal sa alal def ci ngir jàppale leen ba fi ñu liggéey bi ñu àggale ko fa jërul ñuy tudd kenn waaye ku ne xam na sa bopp képp ku yàlla may loo xam ne ëpp na la xamal la wàllu jàmbur nga ca rawati nag wàllu seexul xadim mii nga xam ne bis bu ñu la dugalee ci sa biir bàmmeel moom képp nga fa yaakaar mu xeetli kon nag bu njëkkatee dara ngir moom loo mën ak loo mënul war nga ko caa def te lii moom bu fekkoon sëriñ dana ko ñor dana ko neex te jàpp naa ne moo ko financé boppam kon nag maa ngi ciy woo sama bëgg teel yëpp du ma ko war a digle waaye sëñ naa laa biir kon maa ngi laa biir sama bëgg teel bi yi man dara ñun ñëpp ñu ànd dugal seen loxo te jàppale leen man it lu ma ci mën danaa ko def ku ma déggali lu mu ci mën dana ko